Aujourd'hui, nous ñun ñëpp dañu nekk ci tiis ndax suñu yaay maam Thérèse Ndiaye qui nga xam ni wayjuru président fédération sénégalaise de football met Augustin Senghor mais également mooy wayjuru suñu xarit suñu nga responsable de la haute compétition Léopold Germain Senghor ci ministre des sports qui est génn président de la république nag waxoon naa ñëw ko ak euh, premier ministre ak l'ensemble des membres du gouvernement pour indi njaalu gouvernement Sénégal ci famille Senghor ak famille suñu wayjur mam Thérèse Ndiaye mi nga xamni ni génn aduna moy nak lo xamni lu tiis la Sénégal yépp ko yëg donc monde sportif bi yépp ko yëg ndax maman Thérèse xamuñu ko nak ñun personnellement mais mën nañ na xam nañ ko à travers ses enfants ndax tay ku gis doomam yi ñi mu ni mu leen yare ni ñuy doxalé ak ni ñu sen taxaway ci Sénégal ni mu rafété ñu wara xamni ku baax la won kon dañu ko ñëw dañu ñëw jotali donc njaalu président de la république njaalu premier ministre ak gouvernement bi yëpp mais également ñaanal ko suñu borom mu dajé ak suñu borom donc loolu mo doon cadeau yi vraiment ñuy jaale monde sportif bi yëpp vraiment di len jaale ci tiis bi dal ci kaw Sénégal mais également donc di wane ni en nation sénégalaise amal na njukkal mam Thérèse ndjay donc limu doon liggéey yëpp ci rafet ci yar njabootam ak yëpp yalla nako yalla fay yiw ci bàmmeelam ku xam suma digënté ak. président Augustin Senghor xam suma digënté aussi ak yeneen magam eh, ak eh, magam yëpp ak famille am xam nañu bu Senghor ñàkke yaay man maa ñàkk suma yaay te xamoon naa yéene bu mu am ci famille am xam naa yéene bu mu am ci xaritu Senghor yëpp xam naa ñaan ñu doon ñaanal tous les jours te comme ni ko Amadou kan waxee xam naa ni eh, dee moom kenn du ci sant yàlla kenn kenn du ci wax ni maa ngi santat yàlla lu dul gën ko gërëmaat parce que yàlla mooy joxe yàlla mooy nangu mais tey maire maire maire mère Thérèse génn na àddina waaye am na fierté wu bàyyi fi famille famille bu nga xam ni Sénégal gi yëpp leen sop Sénégal yëpp na respecté si seen dignité si seen njub ak seen engagement pour le pays mais am naa am na au moins tranquillité d'esprit que mère Thérèse génn na àddina ginnaaw bi doomam euh, mi nga xam ne Augustin mooy doomam euh, gagné Coupe d'Afrique loolu xam naa ni lu mu doon ñaan la lu yàgg te yàlla may na ko balaa moo génn àddina Senghor indil ko Coupe d'Afrique ci gore. waaw waaw xanaa di euh, rek euh, euh, gërëm ñëpp ñu ñëw teew fii tey parce que mees bi la ñu waroon dem mais gis ngeen maanaam fii ci morgue bi nit fi nit yi ñëwee bu ñu mujjee organiser cérémonie quand même dommage donc lii day seddal suñu xol parce que waajur surtout waajur bu jigéen kenn du ko remplacer ku ko ñàkk amul mettit bu gën a gën a fort donc euh, tay ñun bu ñu ñaké suñu yaay li mo ñuy defal gis ne nit yi euh, suñu yaay du ñun parce que dafa bare njaboot donc euh, té loolu ñu gis tay kilifa yi ñëw nañu personne anonyme ñëw nañu na jigéen na xalé ñëw na na donc té vraiment li day dal suñu xel ci ak boromam mais aussi dal suñu xel ne même bu nous avons nekkatu nous, jëmma dina fi nous lo xamné na avons fait suxat gën ñu boole ak nit yi parce que loolu la ñu jàngal aussi pour ñu gën a sax si loolu parce que moom li ñu jànga moom ci dundam ñu njabootam moo doon rek ne koom bi gën a rëy si àddina mooy nit ñi la du alal du dara donc ci noonu la ñu mës a yaroo ci noonu la ñu màggee mu gungee ñu may rafetlu man sama côté li may rafetlu rek mooy ne sama yaay dem na dem na uti uyu ci borom bi en étant championne d'Afrique te loolu tamit c'est une championne qui est partie et j'en parce que chaque fois li ñu doon waxtaan ci wàll yi nga xam ne ñun suñu ñun doom yi foofu lañ doon yëngatu donc ma leen di gërëm leen sant